cooki ñaari ginaar yoo gis am na ba ca mën waaye itam njaayam cub boo gis am na ka ca mën madame Gaye ne ma moomoo ma ne ko naam mu ne ma njaayam cub moom maay ka ca ma ne ko déet bu mu jëm kaw mu ne ma ax ndax roppalaan bi laa laal wàcc Bamako ma ne ko Bamako menn mu ne ma waaw maanaam capitalu Mali ca Bambaxayam ma ne ko foofu la cub original wulee ñaay ci leen ma yi xeetu cub original cub VIP original cub takk maanaam takk puso original cub la danga koy sol di boo dem yaa fay fës yokk sa man ak sa personnalité ak sa classe place ngay góor wala ngay jigéen jëlal numéro téléphone bi gaaw 77 la 356 31 40 77 356 31 40 adresse bi Nord Foire Kër Modou Lo ci ginnaaw sd e bi da nga doon wax cuub original solution bangok wowal gaaw madame Gaye mu daal di lay jaay cuub original bu ko defee sa xol feex daal di sedd ni xolu yaayu Messi. sama xol. coolee bari na fitna mu ngi bëgg am nañ jël mbir mi ñu si yàlla ku ne xam na ëllëg di nga wér sa borom ñu ji ma xool nu mu sedd rek moo gën lii quoi fitna baaxul ëllëg lu ma sedd la. te am na loo xam ne bu ko def mu ngi bëgg yee fitna am na loo xam ne mu ngi koy bëgg a def mais yoo xam ne rafetul jekkul ñun ay ay Sénégalais lañ nañ xool nu mu rafete rek. ñun ñëpp tey jii mu defe ko noonu quoi man moom laa gis sama xalaat bokk waaw nguur bu la ooyee demal rek dañ la oo demal nga jox respect bi nga dem nga uy leen ba xam loo fa jëlee lépp dañ koy waxtaane te ah man loolu laa gis sama xalaat waaw dañu att rek dañ la oo boo demee waxal li xam ne moo nekk ne wax rek ku ne kaay wax rek dañu att rek kenn bañ a violent bi nañu att rek ñu takk ci yoon rek att moom bu soobee yàlla ni mu demee noonu la ñëwaatee si canton yàlla man li ma gis bokk cooki ñaari ginaar yoo gis am na ba ca mën waaye itam njaayam cub boo gis am na ka ca mën madame kay ne ma moomoo ma ne ko naam mu ne ma njaayam cub moom maay ka ma ne ko déet bu mu jëm kaw ma ne ma ax ndax roppalaan bi laa laal wàcc Bamako ma ko ne ko Bamako menn ma ne ma waaw maanaam capitalu Mali ca Bambaxayam ma ne ko foofu la cub original wulee ñaay ci leen ma yi xeetu cub original cub VIP original cub takk maanaam takk puso original cub Snapchat avec des brillants ma ne la danga koy sol di briller ndaje dem yaa fay fës yokk sa man ak sa personnalité ak sa Gosaas ngay góor wala ngay jigéen jëlal numéro téléphone bi gaaw 77 la 356 31 40 77 356 31 40 adresse bi Nord Foire Kër Modou ci ginnaaw sd e bi da nga doon wax cuub original solution banque woowal gaaw madame kay mu daal lay jaay cuub original bu ko defee sa xol feex daal di sedd ni xolu yaay Messi oh, oh,